sawaay demal ànd ak sa tayiru momo nga nan liggey ta baye wax ji ñun liggey ci lañ nek ñooy liggey ngay liggey ñun dañuy wax ba xotte ko ah ñun sonal andal ak sa tayiru momo rek wa ma ngi leen di ziare bu baax la na gis live yépp vraiment ma ngi doon gis ma sha allah non la démé parce que gaay yépp a ci terrain bi bo démé Touba da nga ko fekk Bamba ñass ak oustad Seet ñu ànd ak suñ ah, seet ah. boo xam bu ama am solo nga ñëw ci ñoom Cheikh Bara Ndiaye ah. diñu fa fekk diñ fekk imati mm-hmm. ñoom tool ñoom Ndiaye dem ànd ak ñoom ak dem mm-hmm. fépp ci kii bi te loolu dafa am solo ñoom sóob mm-hmm. Al Paradise El Prési yëpp ñëpp wàcc nañ vraiment ñoom yaayu Fatima tout ça joxe nañ ñoo jëndi allah ngir joxe ndam li kon yow yi yéen tolluñu seen xaw macha allah Masyaallah, allah yow ya kenamul kenn amul sa fay. ndeysaan jàmbaar nga xëri. mais. non ken do yow ken do yow ma la do suivre de. vaar yi liñ ci yor xana war bari mom. Deguma? Mané ne yi de yakar na yow war nga war nga ci bari le film sa gaay yi ñi nga wara rek ay kuur. <laughs> du jeex mom kay da ngay jël li nga mën tourner nga tourner ko li nga mënta tourner nga sànni ko ci àll ba. cour gi kay yaakaar da nga door ba bëgg dé mom non mom mom kay da ngay bacc ba tass rek daal di <laughs> li nga mën bacc ngay bacc li nga mënta bacc nga bàyyi leen. <laughs> waa ji waa borom sondage mom anam borom sondage yi ñëwagoo ci moma ah? mom borom sondage yan la ci kan la ci kan Mbadou baybar Bar. nga bax way bayal ma bay yag bax mom xel mu sell lay waxe ta xelam baxul ah mom kay jaxal mom sondage bi ko ay. ay sondage waxe ndof rek lay wax. bu ngeen amone jom wara bayyi sondage. billahi wallahi taala sa way pom du new hors de Prombourg du jama dama ne xoro xari ki euh, Serap Ba ne woon. ba keroog yalla di fay wax bayyi jëf. billahi wallahi loloy deug président man songo gis nga heure yi doon di campagne ay Tamba ay Kolda ay fouta naaju tàng jër. billaay wallaay. booba ñoom ñu ngi ci autorité ci alcorane tal seen kilim. ak ak di bëgg ray rey nit ñi conférence de presse. waaw ñom defe na ne conférence de presse. billahi kan. wallahi hmm. yow moment bi Sonko du jog ñom ñu ngi ci àll bi taxawal ñoom sàmm sa kàddu lañ doon wax ne dañuy waar mais biñ génnee élection léegi liñ leen waar bari na de. <laughs> man de damaa waar man de ma dégg ñu naan ñetti député la nox xam damaa jommi sax man ak seen wax ju bari jépp. <laughs> ñu ne nitu dara. <laughs> wax ji wax ji kat këri. barke alxuraan man mi résultat yi génne waaw. da leen ci boppam moo leen tëdde xale bu jigéen leen nax. de kooku du seen moroom ci xel mu sell nag jikkoy baay bi la yor ma xamal la loolu. allo. da leen a ëpp xel gën leen a yeewu ndaw soosu. ndaw soosu naw mag la du yàq mboob de xelum baay bi la yor. Mo du seen morom ci dara du seen morom ci dara billahi wallahi taala da la gina yewu da la gina yewu ci lepp parce que am nga lu tax euh, tey jii ni war nañ laaj Khalifa Sall ana sa treize ah. député ya nga am député yam amone anamu moo ma jaaxal waa pii seen moo ma seen député ya anamu moo. waa kër Abdoulaye Wade seen ñaar fukki député ak nangam anamu. <laughs> lépp naxasaay na. te dañ ne woon ñoom Sonko falu leen. waaw moo tax keroog bi ma bi ma xëyee dégg waa TFM naan eh, Barth nii sax eh, Sonko ko fal ci maire bi man leen waaye yéen waa TFM yéen ku ngeen yëpp ay naafeq ngeen ñun koy wax da ngeen koo weddi. di laay walaay taalaay. <laughs> dañoo ñëpp nangu lañ te ñëpp a jébbalu. non dégg mais ku jébbalul nooy def ku jébbalul ñu noq lay kuur de. <laughs> nee naa leen nag saa yi day dakk de. ah bu dakkul xam. ba pare xër gis nga ne ñoom ñi ngi teg benn stratégie. maanaam stratégie bu demee nanati. maanaam ñoo ah. liggéey leen te bàyyi wax ji man leen ñii liggéey liggéey waaye man a xëri pour xam nga ne wax la ñuy def noonu. waaw xam nga loolu nii rek léegi nii rek def naa ci vidéo yow làmmiñu daaru waaw parce que man am na ci kenn koo xam ne man dafa jël téléphone noq ma woo naan ma ma bi comme nga a ngeen nag da ngeen di bàyyi wax ji te liggéey ma ne ko tey laa gën a mën a dayee man man boog tey laa gën a mën a dayee ñay liggéey ña ngay liggéey pale ñun ñu ngi ci tuusi di protéger suñu projet ku ñu laal projet bi dañ lay ñuus <laughs> voilà nga day ko sunu projet mom ko wala nan nan lay defal bagage mala ko wax loloy loloy deug mo ñi liggéey mais ñun lolu moy sunu sax ñun duñ président ñun duñ premier ministre ñun duñ DC e. duñ PCA e ya. duñ uh, duñu député waye liñu doon ñu ni ar projet voilà aar projet bi daal ñun daal ñu ngi fii di protéger suñ projet. lakkum projet kum wala ya projet barke yow mal xiyam. na nu man a taxam noppi. moom mooy ñoom ñu toog bañ a diaboliser te boobaa sax duñ noppi ndax suñ gouvernement bi lim liggéey ñun dañ koy wax. bilaay walaay. loolu moom bu fekkee moom la ñu xaar mën na noo sayu te tëri. Ah, mais ñun fi mu nii suñ film ni mom moom boo bëggee deug la ñu daara ñun du ci kanam suñu mission du doon lenn lu dul protéger suñu projet ak fësal suñu liggéey gouvernement. ci loolu lañu dem. wa xamna xamna loolu mom tuti ci kanam mom bëgg na bu yëf yi ba sét tuti nga indi ci débat ci groupe bi ñu waxtané ko manam amutul lenn lo xamni moy suñu yitté yitte lu dul maanaam sunu liggéey gouvernement loolu mom war nga ci taxaw la ñu daaru loolu lañu nekk ndax bo xolé bi nga xamni ñi ngi bëgg dem élection ci loolu rek lañ doon def bu dese yi di génn des fois ñu wala hmm. nga àndal ñoom ku mel ne ñoom gañ dégg ah. li ñu def ñu di la ko wax nga di ko fésal di ko jox euh, euh, citoyen ah. sénégalais ak peuple bi ñu di ko xam parce que loolu mooy li nga xam ne mooy suñ rôle te ci loolu ci lañ fas yéene macha allah amul kenn koo xamante si nii mën ngaa wax ba tax ñu arrière ci li bilaay walaay amul kenn ku mën a wax ba tax ñu arrière ci mhm. loolu moom non daa mën a nekk sa waay ñun ay at yu bari lañu liggéey laa ñu daaru waaw ay at yu bari lañu ñu liggéey du liggéey ba yexi fi diko ko wala ñuy bayyi benn mbam ala juga fële di ko saboté duñ ko nangu mbam mu ko njëkk mu ko bëgg a ñu wulli la ay cour neena len billahi dañ lay ñu say cour lol kay duñ ci sax xalat yi lay taxaw ba kenn talal sab gen mané ko tipp dag bul son barki alquran dañu nek di wax <laughs> 21 jours de doule 21 jours de mensonge 21 jours de de fen un dimanche 17 ñu indi. billaay walaay ma koy nag. billaay walaay yow maanaam man li ma gën a metti laa ñu daaru mooy ana looy nday ngay campagne ay nit taxaw ni la ma diw laa bëgg nga ni man ku ma ni diw laa bëgg ma nangam xam nga loolu yabel weesu ko akuk reewande. reew ak billaay wallaay taalaay du lenn lu dul reewane parce que réew mi bàyyi kenn dëkk moom ku ne am nga droit bëgg. xam nga article 117 bi sax tomb ne jeex na article 117 bi ki xam ne dafa nekk ci liste yi. Mhm. Euh, buñ ko xasee ah, ah, ah. ba keroog ñuy ba keroog ñuy wate ba dimanche 18 kenn mënu koo convoqué mais fi mu toll nii jeex na. Mhm. képp ku defoon. jeex na mucc électoral bi am na droit jàpp na. te image yi nga xam ne amoon fële ndar dafa nekkoon image yu ñaaw. ñii ñu di leen. non man loolu ma metti loolu daf ma metti loolu dafa war a leer. billaay wallaay taal loolu dafa ñaaw dafa ñaaw ba pare ñu génnaat di weddi ak di miim ku ne naan bokkuma ci Assane Diouf mi nga xamante ne bokk na ci li gënoon a jiite woon programme boobu noonu dafa taxaw di setal boppam di daw deux naan bokkuma ci ak dama doon ate musul àtte. waxul dëgg. musul àtte laa lay wax nii nga naan lan Assane Diouf ak mu wax ci rajo beeg télé bi moom dina gis ñuy toroxal ndawal Pastef muy àtte. Barthélemy Dias wàcc ci pharmacie bi di laaj fu douze am. nday la doon def. xanaa biir bi da doon daw yow. waaw bi da doon daw. <laughs> loolu loolu Lamine Daara moo ko xamoon kaako de. waaye man kon garab bu calme biir bi la doon wut.

dacee bu tàng dacee naan bu tàng nee ko kana bi de boko bayiwul di nga pop am ceebirit bi lay walay kana baxul lamiñu daru mo taxone ma tudde len xaju mbefelani coalition xaju mbefelani xaju ndoxani yi billaay wallaay ben jigen rek lañu lañu tok boo xoolee sen coalition billaay wallaay sa waay booy bi téeleen di len manipuler mu xam nga lu ma def ay reen ak seen convoi bi ah. maanaam ñoom seen convoi bi li ma ci neex mooy seen oto yi doon pànc àll bi yaa ngi ko doon gis. <laughs> mu mu jege gars yi postaar lañu wut mu topp leen oto ba paan ñu yàpp ci kaw <laughs> man ni leen tey rek ngeen dee. <laughs> non bay passif baaxul. non passif passif baaxul. Oh. barke ya, alquranul karim saa mo rombo ci boro ti waan beeg seen auto postar auto bo pan ñëw yap ci kaw auto man leen auto ngi war auto de caab xam na de mais xëri waye nak waye nag man man tuuba jaaxal na suñu waté ba paré rek coo amna bay modou bu sa jang defal nga ko dumay kepa mitti nak bay modou bu sa jang barke alquran dumay ya, mitti neena 28 car ñaga ñay la jël ñuy wër journée bép touba di indi nit ñi mu ne transition am na vingt wër nit ñi wallaay taalaay ba ngoon jot nee na bureau de vote yi mënta weesu trois mu ne transition am na xoolal loolu transition am na moo gars yi fii Sénégal la li ma wax gars yi rek man li ma wax gars yi rek fii Sénégal la bu campagne yi ku ñu joxob xaalis lekkal bu woto jotee nga xool ka gën ca yow nga voteel ko xam nga yow moo tax ba ba Aliou moom it nee naa leen tooñ na tooñ nan ko defal defal naa ko vidéo léegi machine wala yi ñu. Aliou Aliou Aliou. Aliou nanguwul machine yi. kon naan madame Touré dëkk ca Taïf moom la Jóob Taïf wulli ba mu nooy mu dem wëraat di nangu ay ay ay machine am. nangu ay man man kay gis naa machine yi machine yi gars yi nangu ba ma ñas laa gis mu dugal ko sama juumul. waaw maanaam madame Touré 2018 ba léegi fu Pastef di demee élection. Jóob Taïf la doon di ko jàppale. mu dem ba ci dernier bi. mun ne ko yow dem ci biram Mangara mu investir ko ci vingt cinq euh, ci cinquième position mu wan ko ne man maa yor dooley Pastef Taïf Birame Mangara financé ko mm-hmm. jox ko ay mu maye. waaye keroog bi résultat yi génnee xam nga lu mu am ci commune Taïf bépp moom mi yor doole. waaw. juróom benn fukki waa moo tax. <laughs> nangu machine ay machine <laughs> <laughs> non gars yi gars yi baaxuñu non parce que baaxul waa war nañoo fexe bañ amaati machine. parce que non dinañ am lépp dinañ am lépp. billaay wallaay dinañ am lépp. waaw. juróom-ñaari machine am seen yooyu ay machine yu gën a gën a yooyu la am man machine ma gis ñu koy nangu sax ay ancien modèle la machine yooyu daa baax machine yooyu kenn mayeetu ko. daanaa ci wal baaxul yooyu ba daanaa wal machine. ancien yi la. voilà ancien modèle la am na yu gën a machine yooyu. non réew mi am na ko gën fuuf. ne fi mu jëm day dem ba machine yooyu doxatul. dox non machine yooyu tubaab bi utilisé ko sax. mayo machine yooyu xaaj bi léegi artisanat yi ñoo koy defar. ndulli daal metti na xëri ak loo ci mën a dégg. No, xawna ñoo dé man sama mère bi fi dafa tok man sama mère bi fi dafa tok ba ci yag di joy lamiñ daru loo wax nii. meeru bi dafa tok ba ci yag bënd bët yi jooy man mané ko señ bi wa lan la lu xew barke alxuraan al karim wallahi taala dafa tok ba ci yag bënd bët yi ñëx wa ki waa lu ko dal barke rasulaay sa waay ayo mu tak 12 bureau 12 bureau benn bureau la for benn bureau benn bureau fukki bureau ak ñaar. commune bu Daara Khoudoss commune bu Daara Khoudoss fukki bureau ak benn bureau la fi for benn bureau département bi moom mu fi dara. yéen yéen département Tivaouane ngeen dëkk. bi waaw. waaw yow nee nañ nga seen waa joojoo nekkoon xaw ma Massata. waaw ah am na Massata am na Ousmane Ciss. Massa Massata moo wéqoon Ami Ndiaye ñii bi. noonu la fa demee nag. mo daw làq du kër biram su lay ties aha ko tëj ko kassa bi ñu genn dem election ñu ne Massata mooy Ami nday ñi bi moy Massata mu jaaxal la <laughs> barke alquran sa way xam nga xam nga lu graw la meñu dara xam nga lu graw waaw Ousmane Sonko dafa jël xalé bu ndaw xalé bu tuti jox ko département bu Tivaouane bu mu jité ko boy bi téye gaay ci all bi xawna ray rey gaay yi barke alxuraan ma jigi gars yi xam nga lu doon campagne kenn xamu ko Dakar la nekkoon <laughs> waa ji jàpp lañ ci département bi xaw la ne da leen a wulle wulle wulle ma jigi bi koy félicité man daal saa ay maa toog ba ci yàgg gars yi joxe résultat yi ma gëstu monsieur le maire monsieur le maire ba bëtee xàccit di jooy bii lay wallaay taalaay <laughs> nga ne ko booy bi nekkoon Dakar du mën a la barke alquran naan noo kii Dakar la nekkon nangam sangam ma ne ko billaay di nga xam saway sa waaye nekk Dakar di liggéey ci réew mi bobu yaangi ci dëkk bi di satti ala li dëkk bi di jaay te li gën a garaaw mooy dañ koo épinglé. voilà loolu lay joy nak dañ ko épinglé de. loolu lay joy de <laughs> non loolu lay joy loolu. loolu lay joy maa ngi doon dañ ko épinglé xam nga. xam nga bu gañe woon sax xawa am ndombal tank wala ñom bu ñu sañoon katrayeb kampanye elektoral lay doon buñ sañoon billaay wallaay taalaay loolu lay jooy maa ngi doog a xam li muy jooy li muy jooy loolu la non man damaa mujj yéemu ci yàlla te élection bu masaan am day wër di menacer nit ñi barke rasulullah la wax day wër di menacer wa dekk bi waaye barki démb sa waaye daa toog ba jàgg bënn bëti la lay wax ni di nga dañoo rew torop yabaate lañ def ba pare problème bi mooy maanaam dañoo jubul seen loxo moo setul. Hmm. loolee problème bi laa ma ñu daaru gars yi seen loxo moo setul moo tax élection yi lu ne la leen di jaral lu ne la di jaral daaru xuddos gii ma nekk nii. Hmm. daaru xuddos gii ma nekk nii laa ma ñu daaru gis nga poto yi ñuy samp ci tali bi ci rebooru tali bi lamp yooyu noonu. dañ cee indi woon fii ci diwaanu daara Xudus indi ci lu baree baree bari wàcce ko ci mairie bi gis nga bi ñu demee ba élection campagne yu ubbi da bi ñu demee ba campagne ubbi dañ koo jël yóbbu ko ci benn village campagne lamp yëpp mayee ko fa comprendre nga mayee fa lamp yëpp campagne ko bi leen dumaa na xam naa loolee bokk na ci li muy jooy ndax lamp yooyu dinañ ko indiwaat Daaru Xudus ndax Daaru Xudus la ko état jox waaw waaw moom mu jël lamp yooyu dem campagne ko teewul ndaare la jël ndaare la jël laa lay wax kooku moo yaay jooy. billaay wallaay taale te lamp yooyu dina ko indiwaat ci dëkk bi. mooy li ma wax président Ousmane Sonko léegi nee ko sa gone yi dañoo màgg te sa gone yi bi ñu màggee. billaay wallaay. fu ñu dëkk jéppiwuñu leen ndax defuñu fa luñ leen di jéppee. billaay wallaay. nit ñi ku ci nekk. fa nga dëkk am na ñoo fa mën a waxal ba convaincre leen ñu baree baree bare parce que. waaye yow. waxoo fa loo xamante si nii dañ la ci kon xale yi président Ousmane Sonko yi ñoom ñoo màgg. bilaay ñoo màgg de. xoolee tey jii. man de koñ bi ma dëkk barkeera. duñ bi lay bilaay man koñ bi ma dëkk amul carte wu soqee ko ci ñoom dem ci ñoom. xalaatuñ ko koñ bi ma dëkk man li ma wër laax de koñ bi lépp passif lañu lépp passif amul amul sax xalaat tiituma sax loolu man. dama ne la man. daaru musi avant ñoo warde lan leen dañuy gagné waji waji paré na oh, man man man man la ma daru ay 13 h la publier man vidéo man ay 13 h man la publier li ma gis bu dakul caaf xam barki serigne bamba xam nga demoon na fi bima ma demee hmm. touba ñu ci biiru wat yi nee leen bu ngone fi crime dana fi am te cheikh ci no crime day am <laughs> barki alcorane wa daayira bi lin ma xélu man leen dara ngeen ma manalul waa daayira bi dañ may xeelu di ma xeelu ba jàgg mujj ma ne ñii mu yoroon sa bakkan tay duma noy noyyi de billaay wallaay taalaay dañoo war a waxtaan seen biir nak ñu xamne ab deer ak parti bokkul war nañu waxtaan ak waa bokul de barke sayyiduna muhammad xaw naa li da mo ra kay say mo ra mom noy na nepp rek xam nga deer bi bu demaloon bopam minimum 3 député man nako am billahi wallahi waye mu dem koo xam ne yow Barthélémy jass mom tok na ci télé bi premièrement néna mom moom bu mu avion du daw duñ fay salaire dara du dox Sénégal. wa wa taxawaat campagne di saga di agressé. sénégalais bëggul lolu billahi wallahi taala japp nit ndar fess ko mel ni ko man dama yaakaar sa way da maron dibi xanaa damaa yaakaar dañu problème lañ deret la dundé non non non waji waji niñ ko def ndar ñaaw na niñ ko def ndar ñaaw na lepp dana dana parce que dégg naa jàpp nañ ci 80 personnes 81 la 81 la deg vingt sax man ku ci nek ci ñom nak ñu mané len yeen wa ak di dégager responsabilités wa tay ji bo lajone ñoño dana na le set ci sax defu ñu ngi fi tok seeni keur xola bi ñewé bi ñëwee daara xudoos mboor xam nga ñu def dañoo bayyi ba wa dëkk bi yépp gën dem campagne xam nga mboor dëkk bi pay patriote lañ dañoo ah. bayyi ba dëkk bi yépp gën dem campagne yi ah. maanaam ñu ñëw ba ci Carrefour bi wacc boy yi nga xamantene ñoo fa yoro ay téléphone ak iPhone boy yu ndaw yoy ay xale yu tuti la lay wax ni ñu duma leen nangu seen ay téléphone daal di dem billahi wallahi boy, bayyi patriote dugg ci dëkk bi di joy lolu barki Serigne Saliou Mbacké seen caravane bi ñom ay sàcc lañ manam ma caravane sàcc la kay seen coalition bi malfaiteur association des malfaiteurs. non association des malfaiteurs la sax nag. parce que ay sàcc lañu. biñ demee Mbàkke loolu lañ fa def. arrêt Jakarta yi lañ toog. billaay wallaay taalaay. biñ demee Kaolack loolu lañ fa def. loolu lañ fa def biñ demee Njaareem loolu lañ fa def. lay wallaay. parce que ñoom dañ jàpp xam nga xam nga lan moo leen freiné ñoom. mais mm-hmm. keroog bi nga xamante si ni président Ousmane Sonko woote na boo xoolee boobaa booba lañ gëj a yëngal campagne sax booba lañ ko gëj a def gëj a def mais gis nga gis nga suñ bàyyi woon loolu mu jàll dimanche ñoom dañ mm-hmm. doon yàq bureau de vote yépp lañ doon yàq loolu moo doonoon seen plan dañ ko doon yàq eh? dañ doon yàq fi eh, vote yi maanaam élection lañ bëggul woon mu am loolu lañ bëgg ñoom suuru dimanche bi laa bu lee amul woon nga jàpp quatre vingt nokk ci kaso bi élection bi dañuy dem ci bureau de wàcc ji mina menacer nit ñi loolu lañ programmé woon ay doomi xaj lañ loolu lañ programmé woon mais nag lamiñu daaro xam nga man lu ma yëm mhm. maanaam euh, candidat yi nga xamante ne man amuñu sax assistant ci bureau de vote ñooñu moom ñan kan yan candidat la waaye man man kii bulletin yi ma gën a jaaxal couleur yi fu ñu ko jëlee loolu lañ war laaj man looloo ma jaaxal man de damaa yaakaar ne Gambie dañoo mujj rax suñu biir man man man man man dama muju man man ci bisu wad ci la doga xamne ñi ñu ay candidat am ci ño xamne ba legi xamaguma len ta election bi jall na man lolo ma jaaxal mani man pour man pour man pour man xawma sammu say fen do nga ñoy candidat passif man lolo la yaakaaroon wa ba pare nak xola mu jël 4e tek ci <laughs> billahi wallahi <laughs> bima deg ma deg jàmm ak sax ko raw billaay walaay bi ma xëyee gis Baye Sonko bi ma demee école parce que man damaa teel a yow quatre heures du matin laa yow wër département bu Tivaouane bi xool bureau yëpp mais bi ma xoolee gis Baye Sonko trente et unième position damaa daal di taal live bi ni leen nag ñanga nga trente et position nii ak ni ak nii la ñuy def nii ak nii ak nii la ñuy def pour mën a gindi mag ñi quoi. leg leg da ngay dugg ci bureau ñu naan la jëlal 5 rek mag ñu ne leen déedéet dina jël 5 way da am ko makoy bolé boole. déedéet laa ilaha illa barké yow mal xiyam maire ñoo gën assurer sax boy yi nga naan lan maire ñoo comprendre l'affaire bi. xam nga booy yi booy yi mën nañoo nekk ci bureau de vote ngay wax ak ñom di leen jëm a du na li mais maire bo boo ak ñom dañ lay tont naan la gisaguma ki may sét <laughs> gisé waaw <laughs> am ci ful la bay bëgg té nak wala voilà boo ko werantee xam nga nu ñuy def nafa yi lañu ubbi rek di la ah. bulletin ba ki la kii laay seet. akurat. alxuraan 41 candidats 41 candidats 41. 41 ana non man man de damaa mujj waaru ma wa waa ñii moom bi nit ñi campagne fu nekkoon. loolu de jaaxal na woon xam naa fukki million ak ma jafee ko xëri fukki million ak non man ah man de dafay non mais xam nga boroom xaalis moom bu amee am bu amee xaalis dema dema dem ba xamul lenn lu muy doyee xaalisam day wut fu ko yàqee. moo taxit waa ji nee nañ ko Mourou Boussa nee nañ ko sa loolu yi nga yoroon di campagne de boo ko joxoon waa Touba moo ëppoon njariñ li nga ko def. billaay wallaay taalaay te ñoom ñëpp ndaare leen jël. sama de wax dëgg yàlla li ma jaaxal maam Mor Mbaye mii moom de nee na ñun gëmuñu si Touba ñun de maam Mor Mbaye. moo waaye. man li ma bëgg moy ñu jël politique jël sëñ bi tek né politique ak sëñ bi sa diamétralement opposé ñoo leen gëna a doon murut. danañ ko def ba ñu ñuus leen. billahi wallahi taala ñoo leen gëna a doon murit ñett junni yoon billaay wallahi wal kitab nañ jël murit ak bay Faal ak ñom seen dajji dajji ak yoy tek né politique benen dimension la. Sëriñ touba bu ñëwaaton jamono sax position bi ñu jël lay jël. billahi wallahi taala kenn ku fi top njangalem seigne touba comme niko Sonko di def amu ci. moy amu ci xam dañoo xam dara. sallallahu alaihi wasallam moy wax di jël référence ci sunu mag ñu baax ñi. looloo billaay walaay taalaay. lolo moy yoon. boo xolé liko may li ngay xamé lolo mom moy euh, fi nga xamante si nii mooy kër kër diine yépp mom moo koy gañe boobu ba légui larsement nak larsement la la wax. Ousmane Sonko da leen a gën lepp jàng luy xetum jang ci rewmi ak doomu adama diko jang Ousmane Sonko da leen koo gën a 2019 la leen ko ñëk wax ci meeting ba ca mbacke bi ñuy wax ak Falaf Islam na nga mu mhm. lele mu taxaw ci meeting ba mu ne leen yeen ñi wax lool suñu rangoon fi sëñ Touba ñew buñ ne ko kuy sa talibé mu ne Ousmane mais moy sama talibé billahi wallahi wal kitab loolooy deug waaw parce que gis nga wax ju ñaaw da taxu ta gagner élection élection euh, surtout élection euh, euh, législative ñom présidentiel lañ ko defoon ngay gis ku nan dana indi emploi Ablaye Silla moom man dama jaaxal na neena dana joxe emploi dana indi courant dana indi ndox Ya gis député bu joxe emploi Ya gis député bu sampi potoy lam ya gis député bu bu xëccum ndox amut lolu ay fen la ay fen la ab député mënul loolu sëriñ bi ab député li mu man mooy say jafe-jafe mu di la ko kaasal loolu mooy li nga xam ne mooy dëgg xëri daa rëcc xam naa day woote laaj bi neex na lool waaye man nii sax damaa bëgg a rëcc xëri damaa njëkk a rëcc rek waaw xëri damaa njëkk a rëcc rek sawaay demal ànd ak sa tayiru moomu nga naan liggéey te bàyyi wax ji ñun liggéey ci lañ nekk ñooy liggéey ngay liggéey ñun dañuy wax ba xotteeku ah buñ sonal àndal ak sa tayiru moomu rek waaw maa ngi leen di ziyaare bu baax live bi live fu remercier la woon